di leen jaajëfalaat bu baax yéen suñu internautes di leen nuyu nañ leen daan nuyoo ci aljuma ji sell ji damay jël nuyoo bi nag jiital ci borom kër gi di Pape Thialis Faye ko nuyu te di ko ñaanal jàmm soo gisee fi ñu nekk nag waru leen bett arène nationale la ku wax Leewtoo TV Leewtoo production xam ne lambi pure la tey revue bi nag jëlee fii di Leewtoo daal ko indi arène nationale damay nuyu Mbaye Babacar bi ma feggool daal di ñëw jukkil leen li gën a fas si bopp xibaar yi Mbaye nuyu naa la jërëjëf Ndeye Mbacke maa ngi lay nuyu di nuyu suñu xarit yi ñuy topp ci Leewtoo TV yëpp di leen ñaanal jàmm ak salaam di nuyu tamit équipe bu lewtoo TV bi ñu àndal yëpp di ci jiital Assane Waalo di ko ñaanal jàmm ak salaam di leen ñaanal bu baax a baax yéen ñi ñuy topp ci Leewtoo TV yàlla dafa leen jàmm ñu sax dàkk. mu ngi noonu nag levée de l'arène bi chaque jour huile moo leen koy may nee naa am na pat am na vermicelle doomu réew mi ñoo ko def nañ ko consommé mbay kan moo ci topp. Euh, au Kayar moo ci topp di ndox mi nga xamante ne bii macha allah diisul oyof na. neex naan naan ba paree nekk ndox ma nga xamante ni bii sportif bu koy jëfandikoo macha allah day maintenir sa form te foo toll da ngay am état de form ba nga xam ne foo tourné dañ la naan lan ngay laal. mu ngi noonu nag tey jii nii vendredi 21 mai 2021 journal suñu lamb ba mu xëyee ci xëtam mu njëkk la muy xam ne nag ginnaaw ba mu jëlee Tapha Tine daal ci teftal Balla Gaye numéro 2 Tapha kii di Boy Niang numéro 2 entre le marto et l'enclume mu mel ni Tapha mooy marteau bi Balla Gaye numéro 2 mooy l'enclume bi Mbaye Babacar. ayca mi ngi noonu kii di Boy Niang numéro 2 gannaaw ba mu buuxantee reyante place am ba dugg ci biir VIP yi ñëw ne faax fa yéenee jëflante ak ñoom dafa jël ñaari avance. avance ki nga xamante ne bii mooy Balla Gaye di xale ba nga xamante ne bii macha allah ku ñu jox avance am say mbokk am nekk nañu ci soxla wante teg ci Tapha la le géant di Bawol mi nga xamante ne bii macha allah moom tamit ñëpp xam nañ ne macha allah loxo dañoo dégg tubaab lool journal bi ne Tapha mu ngi ci guddi ga nga xamante ne bii bët setagul ndax war na jàkkaarloog Balla Gaye mi nga xamante ne bii ay pontam la yor ak ki nga xamante ne bii mooy Tapha Tine mi nga xamante ne bii ay martoom yu diis la yor. kooku Boy Niang numéro 2 le fils de Dégol moo nekk ci diggante boobu kooku di Mohamed Diop promoteur la date ba mu jàpp nag mooy le 27 juin bii ñëw incha allah kam ci nar a taxawal bébé Julde ak Youssou Ndour Mbaye Babacar. Euh, borom borom Jamons Events moom moo taxawal boobu le combat ñu koy wax Mohamed Dia incha allah le la le 27 juin mu fas yéene tëgg combat bu rëy bébé Julde ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Youssou Ndour di combat ba nga xamante ne bii amateurs yi xam nañ ne combat espoir la. combat jànq la ñaari xale yu am gannaaw ñaari xale yi nga xamante ne bii làmb daf leen a yaakaar ëllëg. mu noonu nag ba léegi drapeau chef de l'État lañ jëm kii di fa Gueye mooy coach waa Fatick la muy xam ne ci journal bi nag mooy objectif bu la mu bëgg rek te mbébét ko dafa seene koo jëli ji mooy drapeau bi Mbaye Babacar. mu mel ni wax nga ko région de Fatick ku ko xam xam ko ci liste simple xam ko ci bëre ba nga xamante ne bii macha allah dañ cee xereñ lool euh, Bafa Gueye mi nga xamante ne bii moom mooy tàggat équipe. bu Fatick li mu xamle ci li mu xamle ci journal bi bi mu xëyee mooy dafa bëgg Fatick jëlaat place sam ndax ku nekk xam na ne at bii passé Fatick jëlul drapeau chef de l'État li mu bëggaat mooy Fatick ñu gisaat ko ci anam bi nu ko doon gisee heure bu ñëwee drapeau chef de l'État def performance heure bu ñëwee drapeau chef de l'État jël ko Bafa Gueye moo yëkkati yooyu la kàddu ci journal bi nee na Fatick daal bëgg na ñu gisaat ko ci beneen xar kanam ba nga xamante ne bii bu ñëwee drapeau chef de du ko xëccoo kenn da koy naan coppet rek yóbbu. ba léegi CRG bu Fatick la ñuy desandi ak nga xam ne mooy Sambare Dione ba ñuy bëgg li nga xam te ni mooy jël drapeau chef de l'État moom mi di Sambare Dione reconduire nañ ko ba 2022 Mbaye Babacar ñu jëlaat ko teg ko ci bopp CRG bu Fatick Sambare Dione ñaawaa waa Fatick yëpp ràññee ko ci li nga xamante ne bii mooy làmb di nit nga xamante ne bii ku am xam la ci wàllu làmb moo tax ñu jël ko tegaat ko ci bopp CRG bi mu fas yéenee wëyal fas yéenee doxal incha allah ba 2022 incha allah di doxal lii di làmb foofu ci diwaanu Fatick mu ngi noonu nag ci Fallou Ndiaye promoteur lañ lañ jëm borom Ndiaye production ginnaaw ba mu taxawalee ay lutte simple yu am am solo fa jëm nag beneen combat la taxawal combat boo xam te ne combat espoir la ñaari xale ñaari ndaanaan ñoo xam ne dañoo saf sàpp ci wàllum làmb muy Ada Fass ak nga xamante ne nii mooy Tafa Mbër ba dam ko nar a jàpp nag mooy le 8 août ca Iba Mar Diop moom dara ubbi Iba Mar Diop Mbaye Babacar gannaaw boo mu demee Fass Ndiaga Coy toj ko ñëpp ne waaw mu jógee fas Ndiaga Coy ñëw fii ci arène nationale dëbb ko ba mu nooy nepp kooku di Fallou Ndiaye borom Ndiaye production macha allah mën bis lool bu organiser amateur yëpp daal di kontaan ndax li bés bi laaj yëpp daf koy jox daf ko koy jox moom moo tëgg Ada xele xale boobu nga xamante ne bii macha allah su baree mu neex su ko mu neex am na gannaaw mën naa bëri Ada nag suñ leen di fàttali ki ko mujjee daan moom mooy Onde le Fou bu xam sa cosaan moom moo ko mujjee daan mu war a jàkkaarloog Tapha nag. di combat ba nga xamante ne bii incha allah dina ngeen gis combat bu neex diggante Ada Fass ak Tafa Mbër Fallou Ndiaye borom Ndiaye production taxawal ko incha allah bu ci yàlla àndee le 8 août. incha allah mu mel ni ngir waajal combat boobu rek kooku di Tafa Mbër quitté na écurie daal di dem fi nga xam ne mooy écurie roi des arènes ba di Rock Énergie ca noonu Pointe Sarène lañ jëm Mbaye Babacar vendredi bii nii grosse mise bañ fa teg muy 500000 mbay gala lutte simple. ku tudd Pointe Sarène tudd lutte simple champion yu bëri fa lañ dëkk yu bëri fa la ñuy waree. di dugg ci àll bi di bëri li nga xamante ne bii moom mooy bëre simple incha allah ñoo war faa organiser làmb ju bu ci yàlla àndee euh, bu ci yàlla àndee le waa tey jii ci vendredi bi la incha allah foofu ca Pointe Sarène ñu tagal fa mbër yi nag téeméeri junne incha allah di fa xaar champion yu bari ca noonu nag ginnaaw ba arène nationale daal di xat dat yi bari combat yu bari promoteurs yi xamuñ ñuy def coow la bari xëccoo bi bari lool Mbaye Babacar. Mhm. suñu ministre Matar Ba lam def nag mooy daal di ubbi Iba Mar Diop ngir ñi mën a bëri bëre. nee naa la moo gàlloo wàllu tàggat yaram ci biir réew mi ministre des sports ñu naan ko Matar Ba wax nga ko ku ne xam na ne arène nationale dat yi bëri nañ fi lool combat yi bëri nañ fi lool amateurs yi bëgg nañ fi di ñëw wante nag. Euh, promoteurs yi li ñu taxawal ci ay làmb yëpp xeju fi looloo taxoon promoteurs yi ñaan kii di ministre bi mu ubbil leen stade Iba Mar ñu mën fa di tëgg làmb mu mel ni promoteurs yi ak amateur yi seen jàngoro faju na ndax arène nationale ah, fële di stade Iba Mar Diop ubbi nañ ko incha allah di place bu neex a seetaane làmb nag moo ko arène nationale presque benn la booy seetaan làmb day mel ni yaag mbër yi yenn yenn yenn yenn yenn nekk fi nga xamante ne bii mooy benn place sa diggante mbër yi maximum 5 mètres lay doon mu nekk place bu neex a seetaane làmb ñu ciy remercier bu baax ministre des sports Matar Ba. di ko kontaanee bu baax moom suñu jëwriñ bi ca noonu record lañ jëm lam ñi xamal nag mooy bila bila ginnaaw Sénégal entertainment bañ taxaw taxawalee seen combat le 29 août bi ñu jëm diggante la buuru simp guy gi diggante mag nga xam ne mooy rëg-rëg hmm. xale ba ca MMA dañoo nag dañuy def avant goût avant goût bi nekk Mbaye Babacar à vingt et une heures incha allah vingt et une lay nekk foofu ca TFM diggante rëg-rëg wax nga ko le roi des simpi moom nag dafa waxoon lu doy waar digganteem ak rëg-rëg ndax ne woon na bu ko jàppee benn loxo la koy simpee ba ca kaw dóor ko ci suuf wante bul fàtte ne rëg-rëg moom mooy dënn bi nga xamante ne bii moo nekk fële ca caaro yi mooy foudre bi nekk ca caaro yi nga xamante ne bii macha allah képp ka nga xamante ne bii war ngaa bëri moom rek xam nga ne jël nga mbër jël nga champion ñu war def tey nag seen première ñu war a def incha allah bu ci yàlla àndee euh, seen première face à face fële ca TFM guy gi ñi ngi ko convoqué bu ci yàlla àndee incha vingt 20 h cinq rëg-rëg war a ñëw bu ci yàlla àndee 20h40 Malick Thiandoum mooy mooy animé boobu la émission xam nga ne nag Malick Malick Thiandoum mën nañ wax ne. bu loolu dina bokk ci première émission foofu ci TFM gannaaw fa mu ba mu quitté fële ci ITV dégmal TFM incha allah loolu mooy nekk première émission foofu ci TFM macha allah di nga xamante ne bii xam-xamam dafa màcc lool ci wàllu làmb mënoon a nekk face to face bu neex ndax ku xam Malick Thiandoum xam ne mën na bés mën na làmb bu waxee ci làmb da ngay naan kii xanaa mbër la woon sama sama tonton bu maa ngi koy au passage ca la ñuy jeexalee nag ginnaaw ba Libidor nekkee leader waa Thiès kii di Biram Bisin nag waa Fat waa Matam moom lañ daal di àddu daal di ko teg ca bopp ba Biram Bisin mooy capitaine u équipe bu maatam Biram Bisin di mbër ba nga xamante ne bi moo daanoon sa xarit ba grand bañik fële ca Ndangaan jël bu rëy muy jooy arbitre dafa soufflé mu daw jël tànk bi gitaar ko nelaw ca tànk ba daan ko grand bañik jóg di jooy lu mu ko def da koo gitaar loolu mooy loolu la mbëri naan gitaar arbitre dafa soufflé mu yëkkati loxo ba ca kaw grand bañik yaakaar ne da koy song ca kaw mu daw ne coppet tànk ba nelaw ca gitaar ko daan ko jël bu rëy Birame Mbissine moom nag mooy capitaine équipe bu maatam wante ànd na ci ak ki nga xamante ne bii moom mooy Cheikh Ndiaye mooy 100 kilos bi ànd na ci ak Ngor moom mooy 86 kilo bi ànd na ci ak Amath Dione mooy 76 kilos bi wante Assane Tine moom mooy 66 kilos bi di équipe ba nga xamante ne bii ñoom ñoo fas yéenee teewal Matam fële ca Kaolack incha allah le 28 jàpp 30 ci jogante boobu ñuy wax drapeau chef de l'état. muy noonu nag yow de naa la boole kenn du yow ci mim réew reporter yi yaa leen mën foofu maa ko wax ah dama lay jaajëfal bu baax maa ngi ci gannaaw gaay maa ngi ci gannaaw gaay lu lu lu ruusal rek mu fort waaw waaw kay noonu baax loolu moo nekkoon li gën a fas si boobu xibaar yi maa lay mhm. tàggatoo eh. jaajëfal ñëpp dig leen daje incha allah bu ci yàlla àndee jaajëfal Assane Waalo borom Linguère borom Leewtoo borom euh, cité kër góor gi xaritu Yacine Fall. Mhm. wante moom moom maa ne suñu safari bi kenn du moom. lu mu dawalul ma santal la. santal lu mu dawalul bëggoo day tourner gauche di tourner droite. moom moom maa moom laa tuddee safaru Sénégal yàlla na jàmmam yàgg. ayca Kébé Diakhara borom Kër saar moom tamit ñu ngi koy jaajëfal. Mansour Fall le Benjamin des caméramans moom tamit ñu ngi koy jaajëfal di jaajëfal Fama ak euh, ayda Matu borom anniversaire bi démb ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax wér ak gudd fan topp ci. macha allah wante fàttewunu Bilal Ndiaye ñi ngi koy jaajafal bu baax a baax moom tamit jaajafal nañ leen yéen ñi ñu doon topp ci Leewtoo TV dig daje incha allah suba ak jàmm dina gën a neex dina gën a yaatu. neex na yaatu na mbay moo ko wax kon dama leen jox dig daje rek ëllëg incha allah ci Leewtoo TV waaye balaa loolu ji li kebe suñuy 100000F jox ñu ko fa lañ yem.